asalaamaaleykum suñu mbokku internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile moom naataango taskatu xibaar bile di Pape Alé Niang li mu xamle mooy ginnaaw rek la ñu gis jëm ci verdict bi nga xam ni dinañ ko daal di fësal benn fan ci weeru juin bi jëm ci Ousmane Sonko loole ab plan la boo xam ni moom la ñuy defar fi mu nekk nii rawatina nag nguur gi fi nekk ndax nag gis nañu sax nguur yi nga xam ni ñoom ñoo fi jóge bu nag Senghor ak bu Diouf ba ci du lay Wade ñoom nag xamuñu lii te lii sax nag moom lu leen bett la ñu ñuy xamal nag kër Waly Diouf Bodian nekk responsable bi yore wàllu karange bu Ousmane Sonko ak siège bu Pastef bile moom nag dañ ko daal di attaqué ndekki ni démb daal di fay sànni rek ay cocktail molotov Guy yi Sagna moom nag ma ngay wax ni mi ngi rekk daal di mastawu camaraman bu nag euh, Sénégal bi lee di béy di ndaw moom ginnaaw gi rek bañ ko sànni ab lacrymogène foofee ci cité kër góor gi euh, ba tax na rek ma ngay wax ni lii yëpp itam dafa jëm ci ab stratégie boo xam ne rek njiitu réew mi Macky Sall teg na ko ngir nag bëgg nekk candidat waaye itam bëgg fee jële ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nañu jàpp ni kon ñun fi ñu nekk ni amuñu jàmm benn yoon ak itam mooy dal bi nga xam ni moom la réew mi soxla daal di koy tëj ca foofee ca këram daal di rek jël askan wi rekk bëgg teg ab violence ca seen kaw wàllu résistance constitutionnel bi nga xam ne rek ñun moom la ñuy wéyal saa su nekk ba am li ñu bëgg rawatina rek ba Ousmane Sonko daal di nag jot ci ay àq ak yelleefam yi nga xam ne moom njiitu réew mi moo ko rek daal di foqati ci loxoom.